الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته doomu ay ginnaaw bañ santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom saxaabam ñu ngi leen di ziyaare di leen nuyu islam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh tey nag suñu waxtaan bi mu ngi jëm ci yenn ci melokaanu ñu ñu tuddee al xawaarij maanaam yenn si melokaanu ñu tuddee ay xawaarij daa am benn imam muy imam Saoud bun Ibrahim Ashuraim nekk fële imam ci Makkatal Mukarrama daa am wax wax daa am wax ci am solo ne bokkoon na ci fiq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy xamle xawaarij yi joxu leen rek tur waaye dafa joxe ay melokaan ne melokaan yi ku ko meloo ku ne ci kuréel gi nga bokk loolu nag alhamdulillah génneel nañu jëriñ gu bari ndax bu doon dafa préciser tur rek kon bu ñu feeñee ci jamono ñu ne leen ñoom la dañuy changer tur bi waaye nag seeni euh, melo kaan la joxe euh, dinañ indi nag ay textes yuy wane ne ñu ñu tuddee tey alxawaarij te ñu feeñ tey yor ay tur ñu mel ni Daesh la Boko Haram ak topp ci seen topp seen kuréel bu jeex ak seeni tur yu bari tey ñu ngi préciser suñu waxtaan bi ci ñooñu am nag ay ahadis yu wóor ñëw di wone seeni melokaan xadis bi njëkk comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne ya'ti fi axiri zaman qawmun hudasaau al-asnaan sufahaau al-ahlaam yaquluuna min xayri qawli al-bariyya yamriquuna min al-islaam kamaa yamriqu as-sahmu min ar-ramiyya laa yujaawizu iymaanuhum xanaajirahum fa aynamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawma al-qiyaama axrajahu al-buxaari salaatu alaaf wa sittumi'a wa ahada ashar kon doomu ndey xadis bu njëkk baa ngoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xamle ñooñ ñooy ñan mu ne mujjub jamono dina am ay nit yu feeñ fekk ay gone lañ mooy xudu saawul asnaan te boo xoolee réalité bi mooy loolu ñu ci bëri ay jeunes ay yu ndaw entre dix huit ans dix sept ans vingt ans vingt deux ans ñoo ci ëpp ay xale yu ndaw kon benn melokaan baa ngoon xaddasaawul aslaam sufahaawul ahlaam ñoo xam ne amuñu benn expérience ci dund gi dañuy wax ci diine dañuy wax nag di mbubboo diine waaye ñoom dañoo génn ci diine ci misaal tamit misaal day day misaal day leeral xam nga boo jëlee sa fet nga yor sa flèche teg ci fett xëcc fett bi ba fu mu yem nga bàyyi ko xam nga ni fett boobu mënatul delluwaat ci flèche bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci xikmaam buy jàngale day joxe ay misaal yoo xam ne misaal yu leer la lii benn la ci misaal yi maanaam suñu génnee ci diine ni fett bi di génne ci flèche bi dem boo xëccee sa flèche ba taawee ko nga bàyyi ko xam nga ni flèche boobu moom mënoo fexe fett ba munoo fexe ba mu delluwaat ci flèche bi Yonent bi sallallahu alayhi ñoom bu ñu génnee ci diine noonu lañ ciy génnee seen gëm yàlla nag du yem fenn yemu fa nag mu ne fa aynama laqitumuhum faqtuluhum foo leen leen fekk maanaam ñi nga xam ne melokaan yi lañ ñor rey leen ndax seen rey ku leen rey ngay am yoon aljanna kon islaam moom moo jëkk xeex ñu ngi tuddee tey ay terrorisme waaw ndax yi ba ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nag ku bëgg mbubboo islam xamul da ngaa bi daa fàtt waaye diine islam moom moo njëkk xam leen rek seen i melokaan allahu akbar ci beneen xadis comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi waxee tamit wala ñu taxaw sax ci xadis yi bi ndax dama cee gàttaloon tuuti waaye mën nañ cee faram fàcce sufahaawul axlaam mooy ñoo xam ne seen xel xel yu nu xel yu tuuti la maanaam seen xalaatin dafa nekk xalaatin bu tuuti wala xalaatinu xale te boo ko xoolee dañ koy gis ndax ku xool adduna bi nu mu joxee tey nga xëy féeteer bu benn bis ne mën nga jënd sa pistolet wala sa fetel di rey nit ñi ndax nga mën a taxawal république islamique xam ngeen la waaw yow fetal dañ nga mën a am bu bëree ba bëree ba nga am sa fetal boo xam ne ni dépassé na pistolet ay saatu combat yu ndaw foofu nga mën a yem munoo am bomb munoo am ay avion léegi ñi ko taxaw ne ñoom ngay xeexal loolu lañ am xam nga li ndofte kon foofu da ciy feeñ euh, taxaw seetlu gi nag bu am solo la mooy annahum yaquluuna min xayri qawlil bari boo leen déggee ñuy wax seen làmmiñ day neex maam aay buñ koy jàng walla xadiis yi boo deful attention rek dañuy këf sa xel seen làmmiñ day neex waaye nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi xam ne ñooñu de di leen gisee ñuy taxaw mën wax seen wax leer yonente bi sallallahu alayhi wa ñëw ci beneen xadis boo xam ne muslim moo ko génne mu ne yaqra'una alquran yaxbisuuna yaxsabuuna annahu lahum wa huwa alayhim dañuy ñëw jël ay aaya di ko teg di ko teg toloon muy doon seeni preuve maanaam texte bi lii la wax te xamul ne moom alxuraan boobu mu jël texte boobu mu jël aaya boobu mu jël naan mooy preuve am aaya boobu moom lay waxal ba tey ci seeni melokaan dafay feeñ ci ñoom ñàkk dégg diine ndax ñàkk dégg diine weesu nga jël benn aaya rek ne aaya bi lii la wax te dellu ci borom xam-xam yi la jiitu te dellu woo ci tafsir borom xam-xam yi ñu xam dellu woo tamit ci téere xeet yi imaam yi nga xam ne ay imaam yu tedd lañ te jaar xëy rek jàng sa aaya ne aaya bi lii la wax kon aaya bi seen misaal nag ñu joxe ko ci misaal bu jege daa am waajoo xam ne daa commencé fer ijj rek ne moom macha allah léegi yàlla may na ko mu ñëw di leen xabbatu sawda muy xabbatu sawda gi nga xam xam nga arab dafa sensible baa bi benn tomb ci nekk moom nag ci yàkkamte mu def ko ñaari tomb kon lu muy doon xayya xayya mooy lan ñàngoor gu ñuur dafa liir ne ñàngoor gu ñuur de day faj feebar bu nekk te yonente bi sallallahu dafa ne xabbatu sawda maanaam mooy pepp xabatu sawdaade day faj moom nag pepp bi daf ca yokk benn tomb rek mu changé texte bi te jàpp na ni changé ko dem wut ab ñàngooram bu ñu rey lekk jaare fa dee misaal boobu mooy misaalu génération yi ñu gis léegi ñuy war taal seen bopp di war di rey seen bopp maanaam amuñu dégg-dégg ci diini moo tax yonte bi salaa ne ci beneen xadis yaqra'uuna alquran laa yujaawizu xanaajirahum allahu akbar mu ma dégg-dégg boobu maanaam dinañ dégg alquran dinañ mën a tari alquran taxaw di tari mais texte bi wax yàlla wax na nangam ci suura nangam ci aaya nangam ni nga leen dégg ñu waxee noonu waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la leen na ne dafa ne yaqra'uuna alquran maanaam ñoom alxuraan bi ñuy jàng ci làmmiñ ji rek la yeggul ci xol bi jàllul dem ci seen biir maanaam li ñu ci jublu mooy yeex bi lañuy wax waaye comprendre ñu ko xamuñu lu muy dox dégguñu aaya bi maanaam ñoom li ñu mën rek mooy xurufu aaya bi la ñuy jël di ko wax ci seen làmmiñ mais dégg-dégg aaya bi aay bi nekk ci seen biir xol ñu mën a xam aay bi dëgg-dëgg li mu ne loolu ñoom mënuñu ko am moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa melal leen noonu ne ñoom de yaqra'una al-Qur'an wala la yujawizu hanajirahum loolu nag boo xoolee mu nekk mbir mu leer boo xoolee léegi ci li ngay gis mu doon mbir mu leer moo tax lan mooy wane loolu aay boobu noonu ñuy jàng wala xadis boobu ñuy jàng di ko teetaloo xamuñu dégg-dégg bi ndax ñoom bu ñu jàng ñëwuñu ci ay boroom xam-xam toog jàng te toujours li may ñaax sama bopp di ko ñaax ndaw yi ne diine lu ñuy jàng la xam-xamu diine dañ koy jàng waaye duñ ko for li gën a yées ci xam-xam nag mooy xam-xam fortaal ay kaset internet jël fii laal fee cuuj fee tapet fee loolu soo ko defee yaag misaal bi ma joxe woon léegi loolu rek lay taal di dem ba gis xabba nga daal di ko lii xajja te nag wax dëgg yàlla li ñuy xool tey ñu ngi fi gis ñu leen di coow tey ñu naan ñoom ñoo jiitee ay kuréel kenn ci moom munul taxaw joxe biographie bu leer nga jàng naa ci moom xam-xam diw kenn amul kenn ci ñoom ko xam ne mun na taxaw ne man sama biographie jàng naa ci borom xam-xam nangam ak nangam ak nangam jamais de la vie da ngay rek dégg nañ waaw dañuy jékki-jékki rek secteur liir nañ fii liir fee rek taxaw ne ah ñun ay borom xam-xam lañ yàlla yàlla musal ci loolu euh, ñu gaaw tuuti li ci gën a yéeme nag ci seeni melo yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen mel أنهم يكثرون من العبادات كما قال صلى الله عليه وسلم ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء أخرجه مسلم الله maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam naan nag li ci gën a yéeme ci seeni melokaan dañuy xër ci jaamu yàlla mu foo leen gis mu ngi leen gis muy julli di bëri lu ñuy woor di bëri lu ñuy jàng alxuraan waaye nag lan mooy seen défaut lii nag xawaari bi génnoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ñoom ñoom moom melokaan yi waaye xawaari ji léegi moom bokkuñu ci ñoom ñoom seen mbir yëpp internet kàcc sos yàlla nañu yàlla musal maanaam kon melokaan bi moom euh, xawaari ju njëkk yooyu loon la waaye du xawaari ju suñu jamono ci kon ba tey ñu ngi demaat ñu ñëwaat ci yenn ci melokaanam ci seeni melokaan bii nag moom ñu jiitu ñi ak ñu nekk léegi ñoo ci yem comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee annahum yaqtuluuna ahlal iman wa yadawun ahlal awsaan kama qaala sallallahu alayhi wa sallam yaqtuluuna ahlal islam wa yadawun ahlal awsaan la in ana adraktuhum la aqulannahum qad la at axrajahu al-Buxaari wa Muslim muy mbir mu yéeme yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko quatorze siècle balaa tey tey nga xool ñu ngi tuddee kuréel bi ñoom ni Daesh ak Boko Haram ak ñu bokk ci ñoom ñoom doo leen dégg ñu ngi dem Israël pour rey juif yi jamais ñu bombarde biir Israël ci ñii moom ay juif lañ ñëpp seetlu na ñi moom tey ku tooñ ci kaw suuf ñoo la gën a mën a tooñ ndax ñoo nañ fekk ay jullit nangu seen suuf forcé leen dëgg seen rek di leen faagaagal di leen bis bu nekk di jël seen suuf te ñëpp xam nañ ne ñii ay juif la jamais nga dégg leen ñu rey jamais tamit muy lu jamais nga gis leen ñuy rey ñi nga xam ne sax gëmuñu dara dañuy bàyyi yéeféer bàyyi jaamukatu xëram di rey jullit yonent bi sallallahu man bi su ma dundoon ba daj ñoom dinaa leen rey rey bu te ñii nag ñooy ah, ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddal lii la ñu cëraloon ci waxtu yi doomu ndey yi lii yenn la ci seen melokaan yi xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne lañu ko te booy xool ñi jiitu woon ñi ak ñi nekk léegi ñoo bokk melokaan yi kon bokk na ci yaatuwaayu diine bi ak dégg-dégg diine bi tur solo waaye melokaan yi ak jëf ñoo ci am solo lii la ñu coraloon ci waxtu ñu ngi yem fii amaana ñu yokkaat wala ñu dooli waat ci yeneen émission yi du ñëw lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu jub ci borom bi subhanahu wa taala la lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëgg ci kiy jottali la doomu aadama moomatul wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina وآله وصحبه وسلم